xam nga Sénégal moom chantage bi dafa bari waaye nag pour ñu dàqale nag luwa waa nag dafa am lu mu wax Barthélemy Dias kenn deful crime boo defee crime dañ naan dañ lay jëli sa mairie moom si waxoon toog na nee na moom perdre na xam na ne son poste de député mais ministre des garde des sceaux bu fi nekkoon saisir le président de l'assemblée ki fi nekk heure bu saisir le président de l'assemblée Barthélemy dafay dem ki ko war a wutu du xam nañ ko mooy le maire de Grand Yoff moom si wax na ko waaw mais mais mairie bee nag ñi ngi naan nag gaa yaa ngi ruuma naan nag le hmm. premier ministre ou le parti hmm. bu egsi pouvoir souvent y a sa mairie de ville muy mairie de Dakar. Hmm, da ngeen di difficulté ba boo xefee mairie bi dem délégation spéciale. mais maire de la capitale de euh, Dakar. waaw mais mais mairie a 60 milliards. 60 milliards quand même. c'est bobu tamit euh, euh, l'argent c'est le nerf de la guerre boo amee 60 milliards mun nga def face au président de la république yow am nga xaalis donc ku ñëw fii à part Abdoulaye Wade moo fi bàyyi woon Khalifa Sall mu liggéey Macky Sall bu mu ñëwee gis na kii dafa am ambition euh, présidentielle gars yi mi dugal ko si dafa décapité euh, euh, Khalifa Ababacar Sall léegi nag Barthélemy Diaz mi itam dégg naa ci tànk yooyu lañ nekk de pour décapiter ko pour jëlee ko fi ñi nga wax naan Abbas Sall la ñuy jéem a fexe mu mu jëlaat Abbas Fall la ñuy fexe mu jëlaat maire bi donc Barthélemy bu nelawee dinañ ko dóor yat boo xamante ne balaa moo yeewu dina fekk ñu ñu jëlee ko ci mairie bi parce que soo gisee ñuy ruumanaat naan leen nañ ko fi nañu fexe jëlee ko fi xam nañu yoon waxul loolu donc waaye ñoom dinañ wut porox ndollu porox ndoolu nag dinañ ko jéem a ruumbanaat ci biir mairie bi. jéem a xool est-ce que Barth ah. tamit nooy na nooy goo xam ne ne pas na mor doom. Eh, eh, man la Ndiaga bii ñuy wax. coow loolu la dama ni dama ni moom dañ ko waa dañ koo attaqué sax mu am ay tiir. ñoom ñoom jàpp ñu ne moo ko rey dañ ne. waaw dafa da euh, même le Macky Sall mi dafa ñëw ne légitime défense la. politique moo tax ñu demaat ba ci biir indil ko ay problème mais Barthélemy Diaz xam nga ne moos ba ca berceau ba la commencé di politique moom pour nga rey ko politiquement ah, di nga yeewu teel Barthélemy Diaz dafa xam nu ñuy politiquer te da nga koy dégg mu ne moom dafa diwoo diwlin taxaw ne balaa nga koy jàpp da nga balaa nga koy jàpp dina ratax de donc ni ñuy tourner ni yëpp autour du pot di jéem a xool porox ndoll bi ñu ko jaar pour wàccee ko ci mairie bi ah <laughs> dina metti de waaw Barthélemy mhm. euh, moom lan mooy problème ak euh, NTV gis na ay groupe de presse yu bëri yu mu signé contrat de partenariat te yow ñu gis que ni euh, Barthélemy nit ku baax la. Mhm. comme ni ko ñëpp di waxee léegi lan moo tax moom. mais inti du ma ak yow. ah tam yow itam demandé <laughs> léegi madame ma ñu yónnee ko ko jox ko ko. <laughs> ah man de dinaa ko demandé. waaw demandé ko audience kon yow daal wax nga Barthélemy Diaz na nga recevoir na nga recevoir ñu ñëw daal euh, sa maire yi nga jox ñu ci convention yi ndax nag foog ñu liggéey il faut nga jox ñu ci convention yi comme comme état bi tëj na convention yëpp te ñoo ngi nii mënuñu fay suñu salaire yi il faut nga jox ñu ci convention maire yi nag ndax ñun ñu ngi lay couvrir moom it daa am presse boppam <laughs> ah, déedéet <laughs> non non waaye déet bul wax loolu ah. léegi moom comme dégg nañu dinañu recevoir jox ñu ci convention yi ah, en attendant en attendant état bi di débloquer yeneen convention yi daa mel ni dañun moom fi mu toll nii réew mi doxandéem lañu <laughs> Barthélemy dina recevoir MTV. ah kon baax na loolu da boo ko waxee baax na kon comme demandé nañ ko fii en direct. waaw ah. dinañu recevoir jox ñu ah, convention li ñu temps bi mayoon. waaw ko ñu si 55. Euh, ñu lay laaj yow lan mooy sa kàddu gu mujj lan ngay tàggatoo. Mhm. si si li nga xamante mooy situation réew mi. Mhm. situation daal lu ma ciy tàggatoo mooy euh, li nga xamante ni daal mooy falin yi falin bu bees bi ma gis coow laañ commencé ne kur ci biir këru direction générale yi. ku falu indi say mbokk kenn terewu ko ku falu indi say xarit kenn terewu ko waaye tamit ña fa nekkoon bu dara dul woon dara ñu jox leen seen gëdd te président Diomaye Faye dafa ne woon buy ñëw dina def appel à candidature sénégalais yu bëri ñi ngi yor seen ay diplôme teg mais mënuñu am benn post ci réew mi ndax politiciens yi lu ñëw ñu agrippé wu ci ñoom ak seen ay nit te loolu dafay créer frustration day tax ñi mën dañuy dem liggéeyi bitim réew bàyyi seen réew bi réew boo xamante ne dañ ne dañ bëgg mu développer il faut que ñu koy jox tamit ñi nga xamante ne am nañu xam-xam ci wàll wi politiciens yi mënuñoo jël lépp ci réew mi nag ñu gën a riche di gën a riche ñi gën a pauvre di gën a pauvre les sénégalais en assez espoir bi dafa demoon ba yàq ba ba ba deñ léegi nag ñu ñëw indi projet ñu bëri seen xel dellu si waat ñu ne ñii kat dal nañu suñu xel mais en l'espace de trois mois.

di liguey lu muccu ayib di promotion mu am changement ñu indi fa ku bees kooku jël len sañi len au frigo ba kagn loolu doxalu du doxal rew donc il faut que ngeen gën bayyi amat regard ci li ngeen di liguey bu ngeen bëgge li ngeen di liguey mu feñ bu ngeen bëgge xalé yi len gëm sen yaakaar du tas bu ngeen bëgge ñi len fal sen yaakaar du tas le Sénégal dans son entièreté du tas sen yaakaar du tas tok len ngeen di déglu Sénégalais bu def intermédiaire ak qui que ce soit bu non def non ak qui que ce soit bu leen déglu ñi leen di wax ni ñi ñoo and ak yéen ak yeen ñun ak kenn Sénégal moo ñu ñor donc lool moo doon sama dernier mot président de la République ngir yalla déglul sa Sénégal man saa yuma ma fi je lance cet appel parce que Sénégal man moo ñor man wutuma poste ñaanuma dara

Macky Sall liggéey na fi tali liggéey na fi lu ne. ni wi ni non. ni wi ni non mom tamit. yobunako yobunako ngir yalla am ngeen xa ay xalé ngeen da ngeen a ci réew mi bu ngeen fi bëggee tok comme niñu koy waxé ñaata 50 ans parce que changement ça ne sert à rien du tout on ne change pas une équipe qui qui gagne bu fekkente ne gagné ngeen le cœur des Sénégalais déjà gagné ngeen ko bu len tax ñu génnee len ci bu len ci génnee le réveil sera brutal donc ensemble travaillons pour le Sénégal nous sommes un pays pétrolier nous sommes un pays gazier nous avons le soleil nous avons la mer nous avons le foncier qu'il faut pour nous amener suñu souveraineté économique il le faut volonté rek volonté ce mais boo ñëwee rek ne dinaa def des défauts après désespoir après ñu jëlee leen fi indi fi ñeneen Sénégal di développé wasalaam damay wax rek bu ngeen neexee ngeen déglu ma su leen neexee bu leen ma déglu waaye daal loolu daal c'est la voix du salut je pense. mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni yéen a ngi doon déglu. Mhm. la nouvelle de 7 ans aussi la nouvelle télévision sénégalaise. si chaque mhm. alxamis bu jotee.